TV chaîne nouveau chaîne YouTube di leen et ay là ñu dem ba ci kër ga ko. kër Papa n'a kurus dafa Papa na kurus na na na Papa na ko dama ragal dama sensible. Hmm. léegi mu nabu insisté ne ko yow yaay njëkk a dugg parce que yow yaay magam te yow yaay góor. mel ne comme mhm. si dafa xamoon lan moo xew ci biir appartement bi. la fait le simple fait mënu ko naa ko jiitu. léegi ba ba Papa duggee. Mhm. Papa Naakourous rek nabu ne ko xoolal tijjil salle de bain bi nga xool. mu insisté xam nga Papa kurus loolu wax na ko ci interview wam bi. Ah. léegi mu ne Papa Naakourous mu insisté ne ko tijjil tijjil salle de bain bi si la papa na kurus tijjee salle de bain bi nak fekk si euh, wali Balde mu dé fof ah man de man de man fim nek di man ka bi man na nabu bi rek man moma def ka man fim nek di ana sañu ko de ana sañu ko. loolu la ñepp di ñaan de. ah ndax ñepp nenañ bu fekke dafa soupçonné won ne que dafa wo Aziz jotu ko police la waron dem directement. normalement. mais dafa né nañ dajji nañ dajji kër gi lolu mo louche nak lolu mo jaaxal ñëpp. ah yalla yalla léral lépp rek. donc yal yalla yàlla leeral lépp lépp lér amin nañ ñaan yalla mu bañ ci bokk rek. waaw waaw kon baxna merci beaucoup ma chérie. ah merci de rien de rien. xadi euh, lay yaa may dégg yow ci kaw xadi lay bu fekkee yaa may déglu mën nga tijji sa micro bi euh, nenne tuuti yaa may dégg miss gol bi waa waaw ah, ça naka moom sant bu wér yaa ngi ci jàmm naka affaire yi bon ñun dañuy indi suñu xalaat rek comme tout le monde. Uh-huh. parce que man je me dis que euh, au début xawoon naa tiit tuuti ci ndabu daal yaakaar ni elle peut être complice mais d' après les informa dernières informations yi ma déglu ci ñuy Ngoné Saliou il paraît que uh-huh. ñoom demoon nañu ay cant ci semaine bi léegi bi ñu demee ci ay cant dañ fa doon jotee ak ñooñu nekkoon ci cant ba léegi nag ñooñu ñu doon joteel il paraît que les mêmes personnes ñoom ñoo ñëw def clip bi parce que ñoom bi ñu jotee foofu Nabou ak Aziz ñu mujjee les mêmes personnes ba jibbisiwaat léegi nag les mêmes personnes ñoom am ñoo ñëw ñoo def crime bi ba pare man je me dis que comme enquête nañ ko trois fois di ko bàyyi ñuy ñibbi muy ñibbi dernière enquête bi ñu ko doon enquête dafa am numéro inconnu bu ñu ne moo ko woo téléphone parce que man dégguma sax gaa yi ne dafa ne téléphone dafa réer wala dafa wadd daa am numéro inconnu bu ko woo téléphone léegi na numéro inconnu boobu la ko enquêteurs yi di laaj kan la mu ne xamu ko il pare que loolu moo ko dugal moo tax gars yi téye ko mu ne xamul kan la man nak ci sama xalaat dama ne est-ce que nekkul koo xamante ne soit ku koy menacé la xam nga wala dara ba moo tax mu ragala wax ñee laaj ko kan la mu ne xamul mais nee nañ daal appel inconnu bu mu jot moom la ko gars yi laaj nangul wax kan la exactement et puis bu dee ci kaawu bi mu àndee ak frère bi ñuy ubbi néeg bi et tout kër gi et tout man foofu sama analyse euh, dafa simple parce que man dama jàpp ni que nit tey soo àndee ak malade. sa sa mu feebar par exemple nga yóbbu ko hôpital mu ñibbisi mu dem këram nga toog deux jours gisoo ko nga koy woo jotoo ko te yaa ngi daan woo di koy jot donc sa xel dina ñaaw sa xel lu muy njëkk a xalaat aussitôt rek ah kii de dama koo bàyyee feebar. donc te maa ngi koy woo jotuma ko est-ce que dara dalu ko ci biir néeg bi soit mën na fa dee naara détaillé wala leneen ak leneen donc foofu ubbi daaj ubbi bi mu woote pour ñu ubbi kër gi foofu man gisuma fa xel ñaar parce que loolu tey muy man muy yow muy keneen képp am malade bàyyi malaat boo xamante ni dafa feebar te saa yoo ko daan woo danga koy jot nga koy woo jotoo ko donc di nga tiit di nga dem këram boo boo ko jotul di nga jéem a daaj kër ga wala nga woo ku ko daaj ji loolu moom fépp la. lenn daal la defee erreur fenn moo ko daaneel peut-être loolu la ñëpp wax mooy bi ko enquêteurs yi laajee carrément ne ko appel inconnu bi kan la mu ne xamuma ko foofu moom carrément dafa daanu foofu dafa waroon wax même bu fekkul ay menaces la sax dafa waroon a wax parce que bu waxee peut-être bu dee menace la dinañ ko protéger mais le fait qu'elle a menti ne xamul rek te ñi koy laaj xam nañ ba pare kan la dañ ko doon laaj rek pour gën a confirmer peut-être mais moom nangul wax c'est ça le problème. ci sama xalaat quoi ah. euh, ma chérie euh, déglu naa déglu naa li nga wax li nga wax bu baax a baax a baax mais information boobu noonu non da nga yore vidéo bi non yoruma vidéo bi mais sànq nii dugg naa live boo xamante ni dañ ko teg yow boo duggee ci page Ngoné Saliou ah te dugal ci page am parce que parce que man information yow dugal ci page am nga déglu ko. non non man information. ci mhm. euh, ci Feeling Dakar. ñooñu mun mhm. nañ ma jox information bu ma déglu. Mhm. mais muy Seneweb di di di di euh, fële nu mu tudd sax site bi mu nekk ban site la. Euh, man man live TV chaîne nouveau chaîne YouTube di ay actualité politique société sport religion culture ngir am abonné la cloche de notification ngir Bello TV chaîne bi